salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen mbokkum julit di seen mbokkum taalibe Abdou Samane Mbacke moom sëñ Chouaïbou di wax ne maane maane nag fu mu teew moo ne du dara ma bëgg ne maane ba ñëpp xam li may wax mu leer naññi ba ku doon nattable ci ñi ne moo bu ma nee maane nga xam ne maa wax loolo li jiitu ci samay wax mooy dama bindoon ñu def ko ci français ak ci arab def ko ci siddi yi tasaare ko mu doon lettre bu ubbiku bataaxel bu ubbiku ñu naan lettre ouverte lettre bi dama ko adressé diggante président de la république akub gouvernement ak sëñ daara yi ak seeni donga ak yalwaan mi xew ci réew mi te ñu bëkkewut seq ko ma wax ne li ci jiitu mooy jafe-jafe yi daara doon dund yàgg koo dund rawatina nag ñaari at yi nu weesu xor ñooñal sëñ daara tuumaan leen tëj leen daaw mu gën a metteeti ndax dafa taseeg tawat ji ñu tëj nit ñi couvre-feu bi àgg ci donge mën ñu yalwaaneeti ndax dañ leen dañuy teel a teel a tëdd couvre-feu bi tax na kenn du mën a génn yalwaani reer ñenn ñi dañ yalwaan añ dencaale ca reer ñenn ñi sax duñ reer yàlla suuturaan ba bañ génn ci ak jàmm kenn deewu ca waaye metti woon na lool te booba li ñuy séddale ci réew mi cib dund yaatu woon na lool ci réew mi lu ñu lu la waaye nag sëñ daara bokku ci ab dongam bokku ci waaye yooyu yëpp nag li metti metti ndegam président bii fi ne di Macky Sall bii muy waxtaan barki démb ci wutal ndaw ñi am xëy bàyyi na ci xel ne niñ war a traité daara yi ak donga yi des na nangul na ko boppam comme loolu lépp da ciy duggaale la taxoon ñu di ko def nag ak la ko waraloon loolu weesu nañ ko duma ko lijjanti waaye rek ndegam nangu na ko nangu gi mu ko nangu xam ko reconnaître ko te wax ne dana ci soppiku waat jëlaat ci yeneen matuwaay te lu lu lu jógati wàllu daara dana ci génn dana ci gis seen bopp wax ji loolu laa ci déggee. loolu man en tant que doomi daara nag dama koy yëg mu neex sama xol ma sant ko ca te di ko ca déglu te di ko ca nekk di ko ci séentu foofa laa ca yem man fu ma gisee dëgg wax ko bu ma gisee mu teg tànkam foo xam ne gënalu ma gënalu gënul ci réew mi dama koy wax publiquement bu ma gisee mu def loo xam ne lu rafet la lu arrangé réew mi wala lu arrangé daara yi loolu it danaa ci joxe sama xalaat wone sama mbégte ak sama yaakaar ca loola. bu loolu jàllee nag ma joxe sama xalaat ci daara yi wane ne daara yi nag ñoo war a ànd ñoom ba def benn ñi ci réew mi ñëpp fexe ba waxtaan ba def benn buñ defee benn tànn ci seeni biir kuréel yoo xam ne commission yoo xam ne ñooy tànn ñi war a jàngale ndax ku jóg rek ne man ab sëñ daara laa te xooluñu la ba xam mën ngaa jàngale wala war ngaa jàngale loolu luñ mat a seet la loolu nag état du ko defal biir daara ñooy tànn loolu waaye état leen cee jàppale. dañuy fexe ba gox bu ne association sëñ daara yëpp àndandoo ba dëgër bay benn suudewu ba ne kek kenn ba ñu dugg seen biir bu boobaa nag région bu ne département bu ne danañ fa am commission buñ fa teg boo xam ne ku bëgg a jàngalee te da ngay ñëw ci ñoom ñu xool la test la test yi sax nee naa nañ ciy seetaale docteur yi nañu xool nit ki ba xam boppam kii mas naa dof wala mas naa am problème am déet ndax nit ba dañu ko jox mbooloo mu di ko jàngale war nañu xool boppam. bu jàllee ñu xool xam-xamam xool sagoom xelam léppam ba xam ne kii mën naa yori gone testé ko bu baax a baax njàngi mate ko mën a jàngale gi mate ko ndax mën a mën a jàng bokkut ak mën a jàngale bu ñu xoolee ba xam ne kii mën na jàngale ñu autorisé ko ne war ngaa jàngale mu amum numéro loolu nag sëñ daara yi ñooy xool ña ko man ñu xereñ ci loolu ñu jàngat ko ba ne mën na ko ñu jox ko këyit këyit woowee autorité bi nga xam ne moo ne foofa mën na ko walide ne ànd nañ ci boobaa sëñ jaar boobu day am autorisation mën a jàngale waaye nag sëñ jaar yee ko koy defal état validé ko waaye du état yi ñëw na ci biir daara ji di tànn ñi ko mën ak ñi ko mënul seen yónni wu ci boobaa nag sëñ daara bi day am numéro matriculation boo xam ne day dem ci day ne ci système bi lu ne ci moom ñu xam ko lu ci xew ñu xam ko daaram jëppit dañuy ami numéro ñu xam donga yi ñaata lañ ku nekk foo dëkk foo jógee lu ci xew ñu xam ko ku ci tawat ku faatu ku mokkal ba génn daara ñoo xam ne nekkatu fa léppam ñu di xam loolu changé daara yëpp ñoo koy saytu xam ko lu ñu ci xamit état da koy xam niñ ko xamee état nag day làng ak ñoom waaye du dugg seen biir da leen bàyyee seen bopp ñu am seen biir daara du fa atte dara du fa jëm dara da leen di bàyyi ñu am seen autonomie bopp waaye état an lu muy def mooy encadrer leen ak dimbali leen ak financer leen financement bi nag nii rek lay mën a demee mooy association yooyu mën nañ ubbi ay groupement de intérêt économique sëñ daara bu ne amub sëy nekk président sëy bi ko defee say doo nga nekk membre yi boo nekkee ndar nga jënd sa gaal man ko jox sax ñeneen ñuy napp bénéfice ba ciy jógee nga di koy resa daara boo nekkee jolof ngay sàmm loo ci am nga def koy sa daara boo nekkee bawal nga seet la baax bawal nga def ko fa boo nekkee Dakar nga def seet la nga xam ne moo gën a dox Dakar nga ko fa ñi nga xam dañoo bëgg def internat bu ñu lebalee dix million ba vingt millions mën nañ cee tabax kër goo xam ne dana méngoog lu tolloog donga yee ñu yor ñu am seen néeg yu baax seen toilette yu baax seen mbaaru bu baax mu ñuy jànge seen jaar biir am fu mu ne di leen fay lu jaadu ñu di leen fay seen col mañ war a sol ñu di ko sol di set di faju di lekk-lekk bu baax mu di leen ca mu di mu di mu génn ca la ñuy fay loolu lépp di ce dese dara ci poosam di fay bor ba bu dee ba bor bi mat lépp day dellusiwaat ci moom kooku dimbali nañ ko waaye nag état na xam ne ab sëñ daara amul lu muy garanti kon buñ leen di lebal duñ leen laaj garanti ba ca toppit ab sëñ daara ku ko tegee intérêt sonal ko kon ndimbal lay doon loo xam ne xëy na du doon may waaye du sa rek may ndax mooy loo xam ne du am garanti te du am intérêt loolu nag mën nañoo génne fon bu am solo teg ko ngir dimbale daara. fonds de solidarité de daara bu boobaa lépp ci sëñ daara yi seppi nañ teg nee ñi ci bokkut day mel ne sélectionné la ñuy def di tànn di càmbar di xool ba ne ñii war nañoo jàngale ñu ci bokkut nag ne ca taax yi di wëreelu di fab doomi jàmbur di yàq darab daara ñu seppi leen teg nee boobaa lu yomb lijjanti lay doon ndax daara ñoo nangu ne ñii mën nañoo jàngale daara moo ñoo nangu ne ñii ñoo ay dong kon ñeneen ñu ci bëgg a rax day yomb xam mbirum daaraango ak ni ñu leen di dimbalee bañ financement ak ni ñu di dimbalee bañ xàmmee ñi ci bokkut te loolu lépp état da leen di dëgëral doole leen bañ man ko waaye ñoo koy defal seen bopp ba ca topp nag yalwaan mi matale ñëpp nga xam ne gone ak daara dana ko def handicap bi dana ko def ki néew doole dana ko def loolu foo dem da nga gis lu ko nuru dañoo bokkiwut culture yi bokkul rek waaye yalwaan neexutu mucc mënu su ko tere cent pour cent waaye nag mën naa wàññi ko lool lool dimbalee dango yi moom ba nga xam ne financé nañ ñi ci ëpp bañ man seen bopp li ci des ci ci yalwaan bi mooy nañ fexe ba barab bu ne ñu fudu ut fa benn site defar ko ba mu baax miiri fa lu yaatu teg fay gardien ak i magasin ku am sa ceeb booy saraxa yóbbu fa ku am sa yére yooy saraxa yóbbu fa ku am sa diwlin koy saraxa yóbbu fa am sa suukar yóbbu fa looy am yóbbu fa ña bu ngoonee képp ku ñëw di yalwaan ñu dajale loola séddale leen ko jox leen ko loolu dana tax ñi daa taxaw ci foo yi ak ci mbedd yi di kar ñi ak di leen sonal bu boobaa bu ngeen wutalee aw lay ne wutal ne wutal na ngeen barab bu ngeen di dem luñ fa sarax ngeen bokk ko boobaa nag mën ngaa teg yoon nag ne kenn du taxaw ci mbedd mi yelwaan wala kuñ fi fekkati yoon dal sa kaw waaye ku leen wutalul pexe nag doo leen mën a tere mbedd kon wutal leen barab yi ñu koy defee yoo xam ne barab yi fasantikoo lay doon ci ci ci ci ci région bu ne loolu mooy farata am ci biir Dakar am Pikine am Parcelles am fu ne barab bu ne ñu wut fa site bu yaatu kuy saraxe dem yóbbu fa yelwaankat yëpp di toog bu ngoonee luñ fa sarax ñu séddale leen ko boobaa daañ mën a teg yoon ne ku defati lii ñu def la lii sëñ daara yi nag sonn nañ te ci état bi lañ bokk ndax li état di dajale dañ ca am wàll kon nañ bàyyi xel ne ni ñuy toppatoo jàng jàngkati tubaab bi ne lañu ñu war a toppatoo toppatoo jàngkati alxuraan ndax ay nit lañ ay citoyen lañ waaye nag sëñ daara yi nañ bennoo ba neex dimb dimbale ba ne kekk ba doon benn boobaa ku leen bëgg dimbale day yomb waaye buñ xàjjale ko lum néew néew rek ñii aw fee ànd ak état ci suuf ñii def ne ànd ak ñee ñee wax le ñee wax le loolu arrangé wul état ànd arrangé wul population bi ñoom ñëpp nañ ànd te muy dëgg doon benn seen kàddu gépp di jenn état ne ci seen wet jàppale leen état ba ne jàppee seen daara yi wala daara yi ay noonu yi bañ a ay noonu état bu melee na mu war a mel daa war a xam ne li yor état euh, daara yi da ci am wàll mu jox leen ko daara yi xam ne mënuñoo dox sans état ndax lay tax seen biir dox dëgg-dëgg état da war na cee jàpp seen sécurité ak seen lépp. da koo war kon nag li ko war ci ñoom da ko war a def ñii itam bennoo bay benn ba neex dimbale loolu mooy tënkub li ma waxoon li ci des lépp nag ay détails la yoo xam ne euh, ku bëgg mu gën a leer rek xëy na buñ toogee dana gën a leer ci yow waaye man lii laa jublu woon wax ngir kenn ku ne gis sa bopp kenn ku ne xam li la war ne ca def la la war te bàyyeeg waaye la ko war asalaamaaleykum